Tape www.suividécole au Sénégal.com À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallama taslima mbokk yi ñu déglu ñu ngi dellu siwaat ak yéen fii ci école au Sénégal di wéeg yéen ci njàngaleem alquran mi nga xam ne ci dañu nekkoon ci njàngaleem lettre yi te nu jëkkali woon jeexal li nga xam ni mooy surtout fiili waaye nu wéeg yéen ci njàngale lettre yi ba dugg ak yéen ci ay mujj ci surtout fatxi mu tàmbale woon ci ma muhammadun rasulullahi walladina maahu ashiddaw alal kuffaari ruhamaau baynahum ñu détaillé leen bind gi ñu bind turu sayduna muhammad bi alayhi salaatu wasalaam ba ñeenti lettre yooyu jeex nu waroon a tàbbiseeg yéen insha allahu bu leen dellu si ci ginnaaw ngeen xool foo tàmbale woon ci rasulullahi wallazina maahu muhammadun ji jeex na ñu tàmbale ci rasulullahi wallazina maahu bu ko di ko bind bindit goo xam ne fu ñu ko fekkati mën ko liir di ko bind bindin goo xam ne danañu mën a dem wubbi kaamil bi laajte fan mooy suratu fathi ñu baa nga xool ko ca fahres ba eh, nga gis fa ñu ko bind nga dem ba gis suratu fathi nga dem di ubbi ba yegg ca ay ba mujj nga ubbi fa xool nga liiral sa bopp muhammadun rasulullahi bés boo defee loolu ba ay boobu jeex tàkk ba nga xool ko ba settantal ko xool ni ñu la ko doon détaillé benn par benn ba mu jeex soo wàññi ko kaamil bi jàpp naa ne fu la ci neex di ko ubbi liir ndax mbolem bat ya fa nek di nga ko fekk ci bir kamil bi yaay xol nak ni ñu la ko bolele won bo ñewé ci bir kamil bi nan ngay bolé bo gisé bat sangam mu ànd ak baat sàngam nan nga koy tuddé ndax dafa am aw tuddin lu nela neex rek ngay jangé alquran dedet alquran ken du ko jangé ni la neexee ni ko yàlla wàccee santaane nga jangé ko non non nga koy jangé lolou motax ñuy sonn ci jangalé gi borom bi taala waxam ju reey ji waxam ju dis ji nga xamni mo ne xawlan zaqilan wax ju dis gan la waxam joju de bu ko yombalul won def ci ndimmalam nit du ko meuna xam waye nak neena dama ko yombal ngir ñi ko bëgg xam dama ko yombal ngir ñi xalaat dama ko yombal ngir ñi bëgg ñi ko bëgg jang jàng te bëgg man wala qad yassarna alqur'ana lil dhikri fa hal min mudakkir lolu fofu lañ tollu won di leral ay di leral lettre yi di leral mbind mi di ko bi asma iha ca pare di ko jàngale bi as wati ha ci ya yi ak nim koy tuddé jangale ko ci son yi mu ñëwoon ci jeexetu suratu fili ba léegi mënagunu jeexal ci primi ndax mo ngi won ci gurgi abdul mutalib ci xew-xew bu reey bi nga xam mom lañu jup te yeggagunu ci muy gane adina sallallahu alayhi wa sallam xew ci atmi nu nekkoon ci maamam ji nga xam ni mooy waajuru baayam bi di Abdullahi maamam jooju di Abdul Muttalib ak ñi nga xam ne ñoom la jur te bëgg nañu ci ñëw kenn par kenn waaye danu bëggoon a détaillé rek biir kër googu ci Màkka kan mooy Abdul Muttalib waxoon nañ leen ni fukki doom yu góor la am waxoon nañ leen fukki doom yu góor yooyu Abdullahi ci la bokk moo jur yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ci gënoon a tuuti waxoon nañ leen di ka ca gën a mag moo doon xaaris ñu Abdul Muttalib waxoon nañ leen itam ni fukki doom yu góor yooyu Abdullahi dafa teel a faatu ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi bi mu nekkee ci biiru waa waajuram bu jigéen ca am fa mi weer ndax ku ne xam na ne Seydi Hajj Malick nee na léeg-léeg la arubati xàll duru fi rajabin du mal munaadi yunaadi masmi al fahimi kooku bi muy génn àddina mu alayhi salaatu wasalaam gën a seegul àddina waaye wax nañu la ni juróom-ñeent ñi fi desoon ñéppit nag ñaar ñu góor ñoo ci dugg ci lislaam mooy abbas ibni abdul muttalib ak xamsat ibni abdul muttalib wax nañu la ni amoon na juróom doom yu jigéen waaye eh, menum safiyatu moo ci dugg ci lislaam waxoon nañ la ni abdul muttalib itam nag dafa nekkoon kilifa goo xam ni ci banu hashim kilifa goo xam ni ci qurays kenn la woon am na yu mu sunnaaloon am na yu mu daan def am na yoo xam ne moo ko jëkk def ci giir gi mu bokk mbaa sax ci àddina bi ci mbaax ci ak yiw ci yoo xam ne bi alquran ñëwee bi lislaam ñëwee da ko caa fekk dëgëral loola dëgëral abdul muttalib ca loola ba nga xam ne lu mel ni fuddan karaw bokku na ci yonente bi alayhi salatu wassalam daf ko santane won ba santu ko ni siddiq bis bu muy indi bayam ndaysan di market go xamni ne magat na mu ñew di dugg ci si di gor gi abi baye abubakar ni siddiq ndax abubakar ku ne xamna ni dañ ko tade abubakar muy baye jànq bi baye xale bi jigen bi ñu joxon yonente bi alayhi salatu wassalam mom rek dama sa jël ci jank muy aisha bintu abubakar ñukay wax abubakar ni siddiq di ko adressé tout waaye mu ngi tudd Abdullahi ibnu Abi Quhaafata Abi Quhaafata bàyyam na kera ba ñu koy jiit indee ndeysaan ci kanam yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ba weex ni tàll alayhi salaatu wasalaam daf ni yonent bi moom moom yonent bi daf ni daf ni daf ni dem leen ngeen wutal ko lu ngeen ko soppilee karaw gi ñu fuddan karaw gi fuddan karaw googu mu Mutalib moo ko fi jëkk a def ndax dégg nañ ni bindikat yi am na ci ñu wax ni bijaaw da koo teel a dikkal lool waaye sunnaal nañu ko itam nag mu jaare ci moom moom Abdul Mutalib mooy soppi karaw jëme ko ci mu changé mu fu gën ko ndax te itam daf daan def moom Abdul Mutalib saa boo xamee ne weeru koor dugg si na mu yéeg ca xiraa ca dafa daan dem di leel miskin ya Abdul Mutalib demoon na ba waxuma la miskin yi waaye ndegmente yi ci àll bi nga xam ne lekk jafe woon na leen te ñu daan dundee di rëbb di lekk daana jekki ba yàgg mu loj gileem ajalileen ko ca kaw gaay di ko ca kaw montagne ñu làqu nit ñi ndegmente yi di ko fa fekk di ci lekk ndax buggul woon kenn xiif waaye leel googu mu doon leel miskin yi rawatina di daan ko def ci weeru koor te booba lislaam ñëwagul waxuma la sax waaye booba kenn farataalagul koor waaye weeru koor la daan ah, weeru koor wii di zahru ramadaan bu masaana ñëw moom da ci daan def ay yiw di ci def ak mbaax ba sunu borom tabaaraka wa taala fekk ko ci kër bi muy yónni yónent bi alayhi salaatu mu yónni ko ci weeru koor ci zahru ramadaan al mubaarak yónni ko ca ñaar fukki fan ya ak nàngam indil ko alquranu karim muy anniversaire u alquran nga xam ni mboolem weer yi yëpp daje woon nañu moom weer woowu la tànnoon daan ci yéeg dem ci montagne yi di terale ñi nga xam ni ak di dimbali ji ñi nga xam ne dañu aajoon di mal ci aw nit di xa ak di fa wéeti di xalaat ci amug yàlla gi ak màggu yàlla gi ndax waroon na ko ni am na ñoo xam ni ñu ngi fi woon jamu jaamu yàllam kese ci milatu ibrahim mi nga xamni mo don sen mam rawati na ñom banu hashim wa quraysh yooyu di waa màkka yooyu ci magay yalla gi ci daan xalat abdul mutalib loolu dem na ci ba sunna soso alquran fek ko ci sunnaal yu bare bare ba alquran ñewé dafa deugëralat lu melni limu daan def di sàmm kóllëre lu melni limu doon def nga xamni xaraamal sàngara du ko jege te képp ku ko déggal ku mu yilif doo ko jege xaraamal njaaloo ba képp ku ko ku mu yilif ak ku ko déggal doo ko def doo ko jege ak xaraamal wër kaaba gi ak yaramu neen itam dafa bokkoon ci yi nga xam ne Abdul Muttalib moo ko tere woon te ku yàlla joxoon xëyba maanaam jox ko wegukaay jox ko itam nag fuko nit ñi tek mu am waccu way ci bir nit ñi di digle lu baax di tere ñaawteef bokkoon na ci yemu daan bañ tere ko haramal ko ci bir xurees sul dom ju jigen muy dund an qatlil mawuda wa taxrimil xamri wa zina wal hadd alayhi wa an la yatufa bil bayti uryan wa taazimul ashhuril xurum li tudde woon weer yi ñu xormaal daf ko respecté woon lool moom Abdul Muttalib xormaal ko ba nga xam ne weer yooyu nga xam ne al azhar hurum la weer yu ñu ormaal la di tere ko ca xeex di tere ko ca tooñ bu ñu amoon ñu doon xeex ba weer yooyu ñëw ñu weer seen gànnaay bokkoon na ca ñi leen respecté lu loolu ak taxawal ci ay ay atte yu nga xam ni képp ku jalgati li nga xam ne loolu la ñëpp d'accord ku jalgati yoon di tere yoon dal ci sa kaw tax na Abdul Mutalib ci jamono jaahiliya amoon na wàccuwaay buñ ko fa wàccee amoon na itam na xew-xew yu fa xew yoo xam ne jiite woon na ko am yu mu ca doxal am nu ko doxale itam am yu mu ca tere am yoo xam ne itam doxal ñu wéyal ko ba léegi te lislaam daf ko fekk ca lool ca mbir moom Abdul Mutalib ci boppam nisar na nisar bu xam ne lu jiitu ak moomu ndax lu jiitu dikku yonent bi la alayhi salaatu wasalaam ci kaw suuf waaye lu jiitu sax nag ak màggu baayam ba mu màgg ba mat nit ba nekk ku majeur koo xam ne waaye bi mu koy jiital ba dafa nekk xale bu tuuti nisar googu bi mu ko nisaree mu dal ci kaw Abdullahi te nisar googu ba tey bokk na ci mbaaxam moom Abdul Muttalib màkka jahle gu ñu choono coono son ndax booba ndox gëj na fa ndax ndox fa wona am ndox nekkatu fa won ndox ña amon na jamono ñak ndox ba yi daan dëkk ci xur yi ak yi daan dëkk ci àll xamoon nañu ko ndox xur mu makatal mu ba suñu maam Ibrahima sanc si ba suñu borom baaxee ko fa teenu zamzam ndax ta ko fa soxnaam sa ak domam je Ismaayil Ibrahim delu ci tek fa ndox ma waye ndox moomu dem nañu ba ay ati ati ati at ba bire ba day ba ken nekatu fa nga xamni ni ibrahima ba mu fa dikke dafa don gasaat pilier diko set borom bi ni wa Ibrahim yarfaxu qawaid min al bait, wa ismail ne ba fa yalla samplo won malaika yi ñu sampal ko fa suñu maam adam ba ne bo ràppee ba ken xàmmeetu ko yalla daf ko wonat maam ibrahim mu dekkal ko wat ko tabax ko mom do ismail waaye lu jiitu néeg ba kat ndox ñàkkoon na fa coono amoon na fa suñ boroom a jox ndigal Jibril mu ñëw gas fa teen boobee nekkul teen boo xam ne dafa yoroon ay uteem di ko gas waaye dafa ñëw ci ndigalul yàlla wax nañu ni dafa jog gi tànkam ci suuf dafa këdd suuf si rek ndox mi fee tax génn ndox moomu moo fay law di fa law di fa law nekk fa teen ba illaa yow mi na haga ba fii nu koy waxee tey ndox moomee Jibril noon ba fii ñu taxaw ku ñaan ca ndox moomee sa soxla yàlla dimbali la nee na sam-sam li ma suri ba yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo ne sam-sam di ko naanee rek boo koy naan aajo boo am rek naan ko sam-sam yàlla fajal la sam-sam googu nag ginnaaw ba fa Ibrahima jógee am na ñeneen ñu fa dëkk am na ñeneen ñu fa dëkk ñeneen ñu fa dëkk ay génération ku ne xam na ni diggante maam Ibrahima ak waa Xurays yaatu na diggante boobu ay at la ndax ay yonent jaar nañu fi ndax su ma la waxee rek yonti yàlla aadama yonti yàlla yonti yàlla diggante yonti yàlla Moussa ak yonti yàlla Insa juróomi téeméeri at la diggante yonti yàlla Insa ak yonti yàlla Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juróomi téeméeri at la 500 ans ak yeneen 500 ans yoo xam ni junni at yooyu rek léegi nag waxuma la nag lu jiitu Sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam Màkka yàgg ci rootaan yàgg ci yori tiir bi dem ci dëkk yi leen wër mbaa réew yi leen wër dafa ami ndox mu seer fa lool. nit difa mar nit difa tilim nit di fa sangu ba abdul mutalib mii la yalla baxé tabarak wa taala ñu won ko tenu sam-sam ci nelaw ne ne ñi nettali day am nañu nettali ne mum day dafa jëk teud guddi rek xaatif woo manam aji wote woko ni ko gasal ten. gasal ten gogu deglu nako ko ay yoon ba mujju manam xamul xeyna fu mu koy gas te munu koo laaj waaye ba mu dellu waatee dellu si waat daf ko ni euh, euh, ca xorondoom nga boo demee ba fa xorondoom ga foofa ngay gas waaye doyatul mu ni ko ca diggante ca birit ma ak xorondoom ba fa baaxoñ ba dal ba mu xëyee dem ci booru xorom bi fii zam-zam nekk tey mu fekk fa tegtal yooyu ñu ko wax ci guddi yépp mu fekk fa mu fekk fa baaxoñ ba mu dal fekk fa ceeb rythme maanaam xëy na medd mu ñu fa sànni woon waaye mu fekk fa itam ko rek xorondoom ga Abdul Muttalib tàmbalee gas fii waaye Abdul Muttalib kilifa Quraysh gi kilifa Banu Hashim gi waaye Shaybat al-Hamdi di gas ci béréb boobu waa Màkka ko kii ndax dafa dof waaw lu muy gase ci wetu Kaaba gi nii moom li looy gas mu ne teen laay gas ñu ci teen foo dégg ndox mom mu xam lam xam ak la ko yalla wax mu doylo ko abdul mutalib di gasteen bi abdul mutalib di bi abdul mutalib di gasteen bi ñu di ko reetaan ak di ko abdul mutalib di gas ba gis bunt ba gis yoon bok na ci yi mu genné ba yag mu yem ci matériel matériel yu nga xam ne ñu mësoon a dëkk ci kaaba gi fofu wu yag yag yag ñi fa dëkkoon nag buur yi dañ daan am yoo xam ne dañu ko daan indi ci kaaba bi par at di ko décorer kaaba bi ñenn ñi danañu indi boolu boolu xaalis ñii indi lamu or ñii indi kéwélu or ñii indi nangam ñii indi nangam ba tey muy yu raar yooyu nga xam ni borom alal yi ci àddina bi buur yi ñoo ko daan indi di ko terale ci kaaba bi ñooñu itam nag ña mujjoon nag ba ñuy dem te bëgg a sakk teen ba dañoo jël yu am solo yooyu yëpp ak am solo nga teen ba am solo ñu tàbbal ko ca teen ba futte ko teen ba def ko muy ak tay li ñu daan ba tey suñu réew yii da ngay dem ci ay koñ yoo xam ne da ngay dégg ñu la ah fii de ay ñuy gàddaay masoon nañu fee jaar ba yàgg fi ba ñu fi jógee ba ñuy dem teen bañ fi bàyyi woon ak tay la déggoo ñu naan tay am na tay soose yu nekk fii ci eh, fi ñu tuddee rawatina côté bi ñu tuddee Petite Côte da nga fay fekk fi ñu la ne fii ak tayuk soose la woon wala tayuk nangam la woon rawatina suñu yenn maam yi nga xam ni eh, gàddaaye woon nañu Égypte eh, di ñëw di ñëw dugg àddina bi ba dugg Afrique fii suñu côté Afrique bii ndax ñoom ci Afrique la ñu bokk waaye di ñëw di ñëw di ñëw ba am ñu yegsi ci delta bi fii ba ñu dëkk ci côté côté waalo gii nga xam ni ñu jëkk ñu jëkk a gàddaay ñu jóge woon Inde ñëw Égypte jóge Égypte ñuy tàllal nga xam ni doo maam dana ca gàddaay ba génn àddina sët ba continuer gàddaay ga euh, sëtaat ba continé gàddaay ga ba ñu yegsi ba fii am na ñu mel noonu ak fu ñuy romb fu mel noonu waaye ci gàttal daal ñëpp fa jóge woon te tay googee ñu bàyyi ko fa tay teen boobee ak lañ ko tayee ba abdul mutalib di gas bayam ke ca or yooya la wa Quraysh dikk ni jirim ci kaw ni ko li nak yi xewal mom du yow rek ya koy jere mu ne waaw lu xew ñu ne ko li nun ñepp ko bok ndax no bok dekk bi do <laughs> bok rew mi <laughs> no bok kaaba gi mu ne awaa ah, eh, ba waye zedi haj malik neena bañu ba or ya ba juk ko day def len ni leen nay am ñu def ko ñetti cër kaaba gi nga xam ne moo ko moomoon xam ngeen ni lii kaaba gee ko moomoon ñu indi lii kaaba gi lañ koy moo lañ koy wax waaye li ci des itam nag bu ñu ko séddale woon tey ñaar ñaar ñaar ñaar li ñaar yi maa koy moom ñaar yi kaaba gee koy moom li ci des nag booy boo ngeen xam fu ngeen ko jëmee nu ngeen koy séddoo ñu daal lañu dalee ci kawam mu ne xaasaal xasaa lay ni baytullahi suma tama baqaali say bata min duni siraakihim bi اثنان للبيت ثم اثنان iznani aidan fa natihi فناتيه sunan Abdul Muttalib gay yemu ñoo mom fofu de Abdul Muttalib gas ba yalla won ko ndox ba tenu sam sam bobu beutate ci loxom Quraysh ni ko nak ten bi sunu tena nun ñepp mun len jet teen bi nak sama tena ten bi sama tena ten bi sunu tena mo xana kay ko xamni ki dem bay wutum ndox ki dem ba ndeg mentee ca àll ba muy lewatal ay gàtt di leen yót ak di di loj ay gileem di leen yót kii dana tere aw nit ndox kuy gas ab teen kay ba sonne ci nii ak li mu lépp ak li mu ci jëli lépp ci xewal bokk ko ñu xanaa kay ngir yàlla boo goree wala nga nite di ko ne teen bi wax dëgg yàlla sab teen léegi xam ngeen ni boppam taxul mu di ko def waaye nit ki dana bon ba bon ci boppam wa Quraysh jamono bobu bon nañu bu bon ci sen bop ndax Abdul Mutalib sen bop la kon luñu ko def rek sen bop lañ ko def kon togn bu ko togn rek sen bop lañu togn wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban Abdul Mutalib ñu wérante ci ten bop bu mujj ñu ne nañ dem sam nañu dem sam bu ñu ci atté kat ba ba xam bu àttee lan la len di jox kan lay jox deug ñu fabu mo wa Quraysh ñi ko kontar ñépp ñu war seeni gileem aw yoon wo di tukki tukki ba nak yag tukki bo ñu yagge ci all ba nak ba seen yóbbal jeex ah legi luy dess ñu ni seen yu yóbbal jeex na suñu ndox jeex na lek jeex na li dess kon moy faatu ñu ginaaw nak dañu japp ne dañu wara faatu bu ñu toog ba di faatu te kenn dootu am doole denc sa moroom bu ko defee ndegment yi duñu jariñoo léegi nan gas ay bàmmeel bu ñu gasee ay bàmmeel ba mu jekk kenn ku nekk tëdd ci sa bàmmeel toog fa di xaar dee bu ku jëkk a dee ñenn ñu suul la ba ca ka mujj dee du ñàkk lu nu yàlla baaxe ku suul kooku ba ñu gas seeni bàmmeel Abdul Mutalib ni leen lii nag du jikkooy góor góor du toog di xaar dee nit ku nite nit ku réglé nit ku jàmbaare doo toog di xaar dee nan wóolu yàlla mi nu bind yàlla mi nu moom yàlla mi nu jox teraange te sunuy maam ba néega ni yàlla teral nu nu bëgg a toroxal sunu bopp topp àll bi di dox ci loo xam ni wóor na leen ni waroon nañu ko mën a régler fa nu dëkk nu jóg ba dee nar noo jot ci àll bi kon nan dox ba dee jot na waaye kenn du toog di xaar dee ñu ne ay ca bi ñu jógee ba takkaat seeni gileem abdul muttalib naka mu eh, eh, gileemam fi mu yësoon bi mu tirngalaatee ba yéeg ci gileemam bi gileemam ne bërit ci la tànkam bët fu ndox génn bi tànkam bi tànk gileem gi bët eh, wexee suuf si mu jóg rekk foofa la ndox mi war mu ne ah gars yi xéewal de am na ñu ni ko xewalu lan mu ne ndox génn na fii ñu ne ha ndox ndox mu ne waaw mu ne ñew leen mu jëri abdul mutalib avancé gilem gi yeesal ko wacc ñu sëgg ci ndox mi jëfëndiku ñoom ñépp naan ba man di sang naan nandal seeni jur ak ni gilem mëna naan nan ñu naan nandal seeni jur mu jóg takkaat ne ay leen ñu ne ko déet fu nu jëmati mu ne ah fan doon dem ñu ne ko déet nun koy nan wàññeeku munu la xew ba wagne ko ñu ko teen bi sa teen yow mi nga xam yow la yalla baaxe nga gess ak ni nga ca sonne ba ndox mi ñew ak leneen la ca jitu ndox ma yeb nga bokkoog ñun bi nu defee li itam amo len doy def lu may nango dem dem ci ko xam ñun ñep d'accord nañ ci atem ñuy dem musiba mu mel ni ba lu toll ni dee nar no dab ci albi nga waxa waxa waxa wax ba yalla timbalenu ba dee dabuñu ci àll bi lu dul yàlla delloo si nañ suñuy bakkan ci xéwal bu mun a xéwale ndox ndox moom mu jaarlewaat ko ci yow yow mi yaa moom ndox ma nan dellu makkatal mu karama delloo la sa wàccuwaay ci nii lañu wàññeekoo dellu si keroog nag la Abdul Mutalib misër misëram ga ni man de lii bu fekkee ni màkka ñàkk ku ma jàppale rek ñàkk njaboot taaw yu góor yoo xam ne daanu jog andak man xex loolu rek lañu ma xébé loolu lañu ma bëgg yabé yabe ba tax ñoom ñëpp ñu lu yëngu ñu dal ci sama kaw di togn togn yu tol ni maa ngi ñaan yalla mu wërsegal ma fukki doom yu góor yàlla soo ma wërsëgalee fukki doom yu goor dina ray dina ca ray kenn euh, dina ca ray nisar nane ma ray ca kenn de la ko ñukkal yow yalla tabaaraku taala li mo waral misaru abdul mutalib gu mu nisaroon na ray nit ba nisar ba mu ya yàlla wërsëgal ko fukki dom yoyé mu tege tege tege tege tege bant ya ba bant ba dal ci ki nga xamni moy wajur waajur yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba dara de lu may mu wara ray rey ko wa Makka bañ nak niko ko ci fofu lañuy tambali wat ne tuli istuwaru ray grendi buñu warona rendi wajur yonent bi alayhi salaatu wasalaam na mamam ibrahim don beug rendé mamam Ismail yalla bañ tey jii maamam Abdul Mutalib doon bëgg ren di bàyyam Abdullahi yàlla bañ tabaaraka wa taala ak histoire bala ca xew lépp ba Abdullahi màgg ba jël soxna bàyyam Abdul Mutalib jëlal ko soxna ba mu am ci sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam sangu sang yi ci at mi nga xam ne ci la xew-xew bu rëy bi xewee mooy dikkam gu mu dikk àddina ca amul fii kon dañuy tënkandi fii waxtaan wi ba dellu siwaat ci dars bi ginnaaw dars bi nu dellu si waat ñu Abdul Muttalib ak bi wasalaam la sur que tu ici au peux facilement avoir accès à école au Sénégal